Ousmane Diagne. Ousmane Diagne, hein, c'est la première fois où il réagit juste après euh, sa nomination. Euh, si l'on comme ministre de la ministère de la Justice, euh, dorénavant, nous avons dit que nous avons de le garde des Sceaux. Euh, Ousmane Diagne, nous exactement si nous avons yato si ay ponk yo xamni tam amana ni euh, ñu ko di mëna xaarani parce que tout le temps ñuy dans wax que ni kañ le ministre de la justice daal jox li nga que le procureur pour mu daal par rapport à rapport yi xam mi plus que ce soit euh, IGE OFNAC ou comme ça li nga modi nekk moo di euh, des comptes développement de taille amna ci nak à la dernière minute ni ki li nga euh, ce vendredi 4 mai 24 mai 2024 le ministre de la justice garde des Ousmane Diagne euh, euh, génn na si bois bi nga xam ni itam fa la daal di nekkoon mu nekkoon loo xam ne itam amaan na ni askan ñu ko doon daal di war a mën a xaare ni ñëwaat na si nu mu gën a yaatoo euh, si question bi nga xam ni itam ñeel na la publication des rapports alors d' après lui nag moom ki nga xam ne que moo di ministre bi il a été très clair et direct ñu ngi daal déclaré sax que ni dinañ amal ay recommandations. Euh, daal di war a mën a poursuivre ñi nga xam ni itam tudd na leen si rapport yi alors jàpp na ni itam boo bëree dossier dinañ ko euh, jox ay juge indépendante maanaam ay juge yoo xam ni itam faruñu fenn euh, donc exactement si dossier dinañ ko confier à des juges indépendants d'après ki nga xam que moo di Ousmane Diagne mu nekk jëliñ ko dénk wàllug li nga xam que mu di wàllug yoon ak wàllug yonal donc nag loolu la daal di xamle mu daal di doon sa première sortie ginnaaw euh, ba nga ko daal li nga xamné que modi ministre de la euh, justice li askan wi xaar nak peut-être mu gaaw euh, jox ndigal li nga xamné que modi di ak wal yonal pour ñu daal mëna amal une suite favorable ak rapport yi ñeel li nga xamné que modi Covid 19 bi ak yéen ak yenen alors Serigne nak daal di exactement mm-hmm. cette sortie de Ousmane Diagne ñëwaat na sinum gëna yato gën ay ponk yi nga xam ne tam askan ko daal xaaré xaare na. Mm-hmm. Euh, mu ne di jël euh, dossier jox exactement ay juge yo xamni tam faru ñu fenn c'est-à-dire des juges indépendants ñu fas yéene daal si pencher parce que la demande est là. waaw c'est tout à fait normal c'est dans l'ordre normal des choses et également euh, c'est une suite également logique par rapport à li fi xew parce que affaire rapport yi gis nañ ci lu ne fàllu. Mm. gis nañ véritablement khalis bi nga xamanteni ne woon ni dajale ne woon nañu ni dajale nañ ko ci Covid 19 mu toll à de mille milliards ñu gëm la woon sénégalais yi ni defoon nañ ko ci véritablement li nga xamante ni dafa concerné woon xeex mbas mi ndekete en réalité. Hmm. xaalis bi demul ci mbas mi. Hmm. parce que véritablement rapport yi wane na ko te firndeel na ko également. parce que man dama jàpp ni li xew ci rapport yi te nga xamante ni liir naa ko surtout nag également li nga xamante ni moom laa mujjee gis ci rapport bi nga xam moom mujjee génn. mu ñeel kit kits avec des dialyses ak yooyu. Hmm. jàpp naa ni xam nga Sénégal dem nañ ne ba à un moment donné amoon nañ problème mu kit. Hmm. ndekete kit yu bëri bëri dañ ko détourné woon. xam nga ba waraloon hôpital yu bëree bëree bëree bëree bëri seen. Hmm. Euh, euh, seen seen seen kit yi dafa jeexoon. xam nga loolu def nañ dénonciation yi si rapport yi. beneen bi mooy gis nga si wàllum dund yi ñu doon séddale fii lañ liirandoo maak yow. ben entreprise qui n'est pas inscrite ci registre. Euh, euh, registre APIX muy HMB euh, mm. mm. nga xamanteni amul won habilité sax pour gagner marché bob. ay scandale yu bëree bëree bëri yo xamanteni gis nañ ko ñaawna na ci moment bu nga xamanteni sénégalais yi ñu ngi dund ci jafé jafé ci dund ci moment bu nga xamanteni moment de guerre la comme niko ko Macky Sall waxee woon ñu bàyyi woon suñu lepp ba jaaykatu gerte caaf bi nga xam ci suuf entreprise bi lay toog deur mum dugal entreprise eh, eh, presse yi. Hmm. dougal hmm. serigne ci si dougal ñepp ñëpp <coughs> dougal ndax xex mbass mi mbass mi mi ngi doon dominer un petit peu euh, ñi nga xamanteni ni sénégalais hmm. président de la république dem assemblée nationale ñu voté une loi d'habilitation jox ko. ñu téggi procédure de contrôle yépp ndax lan fast track bu mu woté won gàllankoor bañ a am yéx baña am ndekete ci loolu am na ñu ci doon profité wu am na ñu ci doon abusé wu. vraiment di def détournement d'objectif yenn hôtel yi. ñu ne woon logé nañ fa ay malade ndekete en réalité rapport bi nee na am na hôtel yoo xamante ni nee nañ ay malade dafa nekkoon en réalité kenn nekku fa. Hmm. donc détournement matériel clinique yi yooyu yëpp xam nga doon nga ci gis docteur ñaa doon ci def ay alerte yooyu yëpp fàllu nekk fii tey bu ñu demee ba ay rapport génn. Hmm. épinglé ay nit. wax ni yow kat ci li concerne Covid 19 bi dénkoon nañ la nanam mais na nga ko jaaralee nangam nangam saytu nañ kii mais non léegi ñooñu nga xamante ni c'est c'est une équipe compétente en la matière bu def liguey bi xarañ paré na ci liguey bobu djébal nako justice maintenant nak justice tay une autorité compétente bi nga xamanteni mo wara war dem au fond des choses pour wanni en réalité lañu def ci rapport yi amna wala amul. Mm. maintenant nak ci moment bobu lañ toll. Mm. pour souligner encore une fois le fait de vous citer dans un rapport cela ne veut pas dire que véritablement. Euh, automatiquement li la jiñ yaa ko def. maintenant nag si yoon boobu la procureur la la la la. ministre bi ministre bi nekk. Hmm. parce que loolu wax nga ko c'est une demande sociale. sénégalais yi ñoo bëgg seen dërëm seen dërëm képp kuñ ko mosoon a dégg. Hmm. ñu xam na nga ko jëfandikoo naka la. parce que ñu la ko woon pour après nga koy defan nga koy utiliser pour de à des fins personnelles. Hmm. te loolu nag moom moo am si rapport yi donc nag ce qu'on attend yàgg nañ ko wax. moi la justice dem jusqu'au bout du bout de sa logique moi dem ba ci cappaandawu mbir mbir gi ñu topato mbir mi hmm. véritablement de manière indépendante de manière également inclusive ba nga xamante ni képp ku mbir mi laal fallu nga mëna nga hmm. mëna nga mëna assumer ses responsabilités ku ci wara tëdd nga dem tëdd ku ci wara fay également nga fay parce que xaalis bi bi nga xamante mom lañ leen tuumal Macky Sall moomu ko won hmm. Basir Diomaye Faye moomu ko c'est l'argent du contribuable du contribuable sénégalais c'est l'argent appartenant au peuple sénégalais mm. donc on a argent à khalis aujourd'hui les sénégalais veulent que véritablement cet argent là nous euh, xam le la alors c'est clair exactement mu une très belle analyse euh, par rapport ak euh, Covid beeg ak aussi yeneen ak yeneen li nga xam ni itam am na si yeneen saa dëkk suñu mu gëna yato do donc tam ki nga xamne ne que moo Ousmane Diagne mi ngi annoncé exactement des poursuites jàpp na ni seront initiés contre euh, tous les accusés dans les rapports képp ki nga xam tam itam tudd nañ la si rapport bi yoon ak wala yoonal dina daal def liggéeyam sulu lu du tara mu dal ki koy annoncé ni ki li nga xam ne que moo vendredi bi yamok 24 mai 2024 ki nga xamne ne que moo Ousmane Diagne nak moom exprimer exactement euh, confiance bi nga xamni tam amna ko si euh, rapport yi ba ni nga xam ni la ko daal publier japp na ni tam sont des professionnels ñom ñoko ko daal di def euh, que ce soit Ofnak, IGE ba si li nga xam nekk moo des comptes mais il aussi jàpp finalité de li nga xam modi rapport de leen lu dul daal modi poursuites alors dans ce sens te itam moom jàpp euh, il ne pense pas à moins évident que les que ces poursuites préconisées ou suggérées ne soient pas légalement établies et je ne pense pas euh, que ce soit le cas à moins qu'il y ait effectivement des raisons de penser

Euh, qui euh, euh, n'a jamais que maudit peut-être bien c'est que nous que depuis la publication des rapports qui si benn avancement bin le tweet qui n'a jamais que maudit